boo xam ne dañoo wan ne nu ñu àndee ànd bu dëgg la yàggul président comité électoral bi waxee Abdou Karim Mbengue te ñu génn si ay local yoo xam ne ne dañu tasoon parce que boobu moo tax tey euh, ñi nga xam ne la ñu ooyee opposition bi te jiitee maire yi pratiquement ñoom ñëpp 22 pour cent lañu ñu am 22 25 pour cent la ñu gagné cela veut dire que donc la majorité est ailleurs loolu ñu def si jàngat Nous sommes aussi bii du nos première élection législative nous sommes à notre troisième élection législative avec l'avènement du président Macky Sall L'élection législative yi avons dem gagné largement ici au niveau de la commune de Rufisque et du département de Rufisque donc nous n'avons pas encore un reste pour être dans ce combat Nous nga un adversaire, nous avons un yi ñu avons euh, dajal ak nous euh, ñu ñu xam Nous avons nañ adversaire, ci parce que comme nous avons toujours Euh, du ñoo xam ne ne dañu sopp tëngëj joxe naa exemple tout à l'heure si maire bi nga xam ne tey mooy candidat euh, yeewi ba tey du fanaan tëngëj bu dul fanaan tëngëj nag mënuñu gëm na yow am nga bëgg-bëgg si tëngëj yaakaar naa ne kër ga muy tabax sax euh, jëlul non fond yi nga xam ne mu nekk si maire bi di si tabax kër waajuram day def toujours ay arithmétique mais arithmétique ya mu def si département bi dafa réer dëgg la nag Rufisque du commune bu bees parce que commune 1884 il dem élection ñu jangat Nous avons lu bari ci fi ñu jëm yangat nañ né euh, Tëngéej dafa a am stabilité Sénégal dafa stabilité mais ñi nga xamné né amuñu vision discours yëpp c'est une c'est un discours de va ans en guerre un discours qui désoriente même xalé yu il nañ espoir nous disons non l'espoir est dans ce pays L'espoir est avec le président Macky Sall ndax réalisation yi mu def département en termes de projet en termes de vision que ce soit le pôle, que ce soit les ports minéral de Barnier, ak national ak yenen dañ suñu combat c'est comment nous unir pour li le défi du Sénégal malgré les crises yi am une crise liée à la Covid une crise liée à l'Ukraine le combat aujourd'hui de cette jeunesse c'est le combat de l'emploi te xey ndaw ñi mu indi indi ko ci Sénégal indi ko fep te da nga si commencé gis ont dañuy ñaan Yalla mu yok loolu lu ko koy yokkul il faut une majorité à l'Assemblée nationale une majorité qui lui permettrait de dérouler d'ici la fin de son mandat li nga xamné ne Il ko objectif Sénégal te yaakaar nañ le sont assez éveillés pour ne pas donner une majorité à des des mënuma leen wax sax c'est ay ay ay élèves primaires mais nous avons une dañu amul expérience d'État et qui est nouveau dans ce dans ce Yewwi kan mot si nouveau si ñooñu ñoo xam ne dañ leen xam wax qui a fait au moins trois coalitions nekk na PS jóge PS dem PDS Habib Habib Sy keneen ci moom kenn wax parce qu'il n'a pas encore résolu son problème avec Adji Sarr defe naa ne ñooñu war nañ mën a am leneen lu tal du Sénégal. Il n'y aura pas de cohabitation dans ce pays parce que le président Macky gagnera largement ces élections et nous voudrons que Tenguet, Bokassi Nikaï majorité qualifiée pour continuer à exercer son mandat.